mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kàttanam di sant yàlla bu baax a baax di nuyu El Hadji Modou Diouf euh, euh, topp ñu ngi koy nuyu di nuyu waa solution yëpp Sanjogu Sonyubu euh, maa jigéen Souka Aïcha Assane Bessere ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm di am mbégte teewaat fii ci 30 minutes chrono. 30 minutes chrono nag mu nu koy def alxamis junne dañuy waxtaanee actualité bi ak fi mu toll tey jii nag actualité bi gën a tàng te dab ñu mooy DGE di direction générale des élections bi ñu dénk li jëm ci wàllu organisation élection Sénégal ginnaaw ordinance bi juge Sabassi Faye joxe ginnaaw ba mu ne waruñoo dindi turu Ousmane Sonko ci liste électorale yi ñu dem ca Ziguinchor ñu àtte Ousmane Sonko am ndam bi mu amee ndam nag. kii di agent judiciaire de l'État bëggoon na wax ci juge beeg ka mu bokkal di conseil municipal waaye ginnaaw gi génn nañ ci waaye àtte bi day wéy ci cour suprême ñu ngi wax nag bis bu ne jàpp nañ ko tey jàpp nañ ko suba mais li jëm ci àtte bi ginnaaw ba mu génnee di ordonnance bi juge bi génnee danoo waroon a jël ordinance bi dem jébbal ko kii di DGE buñ ko ko jébbalee nag loolooy wane ni ko Sonko turam mënoon a dugg ci liste électorale yi comme dañ na dañ ko cee dindi. waaye ginnaaw dugg gin koy dugal ci biir liste électorale yi duñ yem ci loolu waaye dañ koy jox ay fiches mu dem outil parrainage ndaxte yoon moo ko jox loolu yoon woowu la nag may Ousmane Sonko loolu loolu la ko waa DGE lankal tey jii lankal bi nag ginnaaw ba kii di daafe di Mohamed Ayib deme ci DGE ne day jëli fiche yi ñu xaarloo ko xaarloo ko jékki-jékki ne ay ordre lañ jot bi mu xaaree xaar jëm ci ordre yooyu ñu ni ko directeur général des élections nee na du recevoir tey loolu nag directeur général des élections def tegu ko fenn tegu ko fenn lu tax ñu ne tegu ko fenn mooy DGE c'est une administration publique service public la service public man mii sax bu ma fa demee huit heures ba treize heures war naa mën a dugg mi ngi mel ne nga am soxla Sénélec est-ce que da dem ci bunt bi ñun la doo dugg da ngay dem même bu woon ayib daafe sénégalais bu mu mënti doon bu soxlaa DGE dafa war dem dugg ci waxtu yi ñu appel ni nit war na fa dugg léegi nag yan ordre la jot ginnaaw ba mu leen ko njëkk a bañalee ci bañal bu njëkk ba ba ñu dem ca Ziguinchor di ko fa àttee bañal boobu sax du woon yoon ndaxte du DGE moom mooy xool kan mooy candidat ak ku ko doonul moom yoonam nekku ci moom du juge moom kenn àtteloo ko moom DGE moom tey jii nag mu def bu ci gën a ñaawati maanaam bii mooy non duma ma la recevoir léegi nag ñu nekk ci état hors la li may faral di wax naan ñi war a defar bu ñu yàqee mu ñaaw ñi war a wane yoon wi war a jaar yoon ñoom ñooy jalgati yoon ci Sénégal loolu ci réew mi rek la xewee te réew mi rek la ko nit sañ a def di ab directeur ñëpp na patt toog di ko seetaan mi def lu ko neex lii nag. ginnaaw yabaate ginnaaw mbañeel mais ginnaaw kokkali ginnaaw tooñ ut pour man dañuy ut Ousmane Sonko dañuy ut waa Pastef man dama gëm ni ñii bëgguñu dem élection loolu nag lu yàgg a nekk sama xel bi la waaw man dama gëm loolu parce que seen mbër mi ñu samp di Amadou Ba peese nañ ko bu baax mais xam na nañu du waaja waaw peese nañ ko mais xam nañu du waaja parce que depuis quand administration. mën di jël yenn dogal yi di dugal loxoom wala làmmiñam ci loo xam ne yoonam nekkul ci depuis quand di nga une administration yoonam nekkul ci kan moo war a doon candidat ku ko warta doon ku ko wuli loolu seen yoon nekku ci lu ëpp deux cent doomu Sénégal dem nanu DGE ne ay candidat lan wala déclaré na seen candidat yu uti ay fiche xam ne deux cent deux cent dafa bari deux cent yooyu est-ce que bi ñu ñëwee di ut si seeni parrainage est-ce que dañ leen laaj ni yow koo doon ak loo doon ak foo ko doonee danoo ñëw rek ñu jox leen parce que le fait ko nga jox ko nit ki ne signifie fi que waa ji candidat la wala du candidat parce que nit uti na fi parrainage élection locale législative yu ñu weesu nit uti uti na fi parrainage ba am ko mais ñëw nekkul doon doonul candidat kon ut parrainage am ko signifie wul rien. du tout mais comme danoo jublu ci processus électoral bi te li jëm ci ut parrainage ci processus bi la bokk bépp sénégalais bu mat lu mu doon doon doomi réew mi sañ naa ñëw ut dem uti ay parrainage kon ñu ko ñëpp nammee bii nag yemuñu ci ut ko mais yoon moo dogal maanaam yoon xamul lu gën a bon ci àddina mooy ñu am un état violeur état boo xam ne day viole ay loi loolu dafa garaaw te njëkkewul tey de. élection locale ak législative yu ñu weetu gis nañ ni DGE doxalee pour la première fois au Sénégal liste parrainage maanaam liste suppléant di dem élection présidentielle te loolu lépp DGE moo ñu ko yóbbee gis nañ ni mu doxale woon ci élection locale yi ci liste waa Yewwi ak waa Wallu yi maanaam di sélectionné ku ko neex ne da ngay bokk ku ko neexul mën a doo bokk direction général des élections sañul loolu te loolu yoon may ko ko léegi nag li mu def ni fan laa ko teg ba bu ba ñu dem ba une administration mën a défier autorité wu loi administration boo xam ne moom dafa war a soumettre ci loi maanaam administration bi moom dafa war a ci loi administration boobu sañ a violer loi mais loolu di nga nguur gi yàgg nañ ko def di nga mbirum euh, dafa am benn affaire bu fi amoon mooy les élèves maîtres élèves maîtres yi danoo mës a yóbbu Serigne mbay Thiam cour suprême boobu moo nekkoon ministre éducation xaw ma enseignement je ne sais plus bi ñu ko yóbbee gañe ko yi les élèves maîtres Serigne Mbaye Thiam dafa taxaw ne li yoon dogal du ma ko def li yoon dogal dafa dem ba assemblée nationale taxaw fa ne li yoon dogal du ma ko def Mansour fay fii la fa of nag woo. nag woo mu ne dew ma défier OFNAC faale wuñu yoon ñii kii di Cheikh Oumar Anne bi mu fi yor kuddu la même chose Moustapha Diop fii li mu fi yàkkul waa Cour des comptes amu fi li jëm ci rapport Covid 19 yi bi mu fi génnee mais ay ministre ñoo taxaw di dal ci Cour de comptes naan ay magistrats politiciens lañ am ku taxaw ne couleur couleuru nag couleuru Pastef la. ñoom ñi war a jaar yoon jiite réew mi ñoom ñooy jalgati yoon saa su ne te ku wax ñu ne la ràpp ci kaso bi ci mën réew la nekk ci àddina li xale yi di wax ci internet bi c'est vrai Sénégal du réew parce que réew mu normal du doxe nii Sonko war na nekk candidat war a waru ko doon mais nan bàyyi justice di ko wax mais li bettuñu parce que agent judiciaire de l'État bi saba si fay waxee ni nan delloo Sonko àqam ak yelleefam dafa taxaw ne le recours est suspensif moom moo ko njëkk bind ci page Facebook comme li DGE def nii dafa mel ne li agent judiciaire de l' état waxoon moom la jëfee te agent judiciaire kan lay waxal mooy état bi kon DGE li mu def état moo ko sant. li ngeen di def nag defoo leen ko kenn seen bopp ngeen koy def nguur gii xamul lu tax mën naa leen seen bopp lañ koy def mooy mbiru Ousmane Ngom arrêt Ousmane Ngom bi nguuru Abdoulaye Wade moo ko defoon. na place de kenn du fa manifesteeti kenn du fa yëngooti biñ demee ba Macky sàll falu waa PDS loi boobu dalaat seen kaw ñoom ñoo voté wul bi ci ay tappale PDS tey ji loi boobu moo dalaat seen kaw nguur gi ñetti weer ñeenti weer dese leen fi ñuy def ay mbiri tappale wala fi dañ booy bañ del bañ ci dëgg waaye booy bëgg del bëgg ci dëgg waaye ni noo doxalee mu ëllëg mun na këpp seen kaw parce que li ñuy def yëpp ay jurisprudence la loolu dama ni est-ce que ñi mus nañu dëgg-dëgg parce que nag sànnantey xeer wala fi nee nan mais xooxu siddéem doy na ci ah sànn woo xam ne boo ko sànnee mu dem dellu si xoolu siddéem doy na ci te lii yëpp bi fi nguur gee jógee après 2024 mun na këpp waat seen kaw ñoom nguur gi fii ñëw mun na ko utiliser contre Macky Sall ak njabootam loolu tax ma ni leen nan dal te ànd ak sago ànd ak tey loolu tax te dafa am benn wax boo xam ne le colonel Abdou Aziz Ndaw da ko waxoon ci benn émission buñ ko invité woon ci benn rajo mu ne réew pour mu dëgër ñett ñoo ko téye mu ne réew day am justice bu dëgër bu maandu te loolu ah ñun de gisatuñ ko waxuñu amul mais ñun gisatuñ ko ni justice du doxe ñun xamuñu ñun lu mu doon ñu ne buñ jugee ci lool nee na ñu am une administration bu jub di def liggéeyam di nga nguuru parti socialiste mën nga leen jiñ lu ne jiñ lu ne Abdou Diouf mais administration bu dëgër waaye nag boobu ay ndaanaa na fi nekkoon parce que balaa ñuy fal nit dañuy def enquête de moralité ak enquête de personnalité pour xam moom mooy kan bu ko dénkee parce que ki nekk ci administration mos naa dégg Aminata Assome Diatta wax ko li li muy xumtoo rek mooy moom du bëgg kenn moom réew mi rek bëgg parce que administration mooy kennu yittee réew mi mu ne beneen bi ci topp colonel Abdou Aziz Ndaw mooy wax de mu ne armée bi armée bi de gàcce ngaalaama kenn mënu leen waxal dara mais lii di justice bi ak administration mu ne réew bu ñett yi màbbee bi justice bi ak lii di armée bi réew mu amatul te Sénégal nag bu doon ne ñetti tànk la yor ñaar ya damm nan benn bi lay doxee armee bi moo fi des ñoom ñu ngi def seen liggéey armée bu respectable bu jaar yoon une armée républicaine mais administration républicaine man gisatuma ko parce que li xew ci DG kenn xamul mu doon Sénégal lu ne xew na fi du jamais vu mais li xew nii DG mosul am Sénégal li xew ci justice Sénégal mosul am Sénégal te nguur gi di ko def buñ deful nànk buñ fi jugee li mun na retourner contre ñoom parce que mais nag bu mu bett kenn parce que buñ demee ba ma Madiambal Diagne ci Madiambal laay dikk mën a nekk conseil wu nguur gi yor journoom yor làmmiñam yor compte Twitter am lu ne mu dugg ci di bind ci journalam maanaam journal bi léegi léegi contre Ousmane Sonko la maanaam moom liggéey boobu moo ko yor yamul rek ci mbiri DG yi ak li mu waxoon jëm ci juge Sabassy Faye ak rakkam ba nekk ca maire bu Ziguinchor maanaam ñàkk xam-xam ak ñàkk yeewu mooy tax ngay liyee ñaar yooyu mais Ousmane Sonko li nga koy toppee bokkul dara ak liggéeyam en tant que maire mais li koy toppee leneen la jëm ci wàllu contumace waaye yoon jox na ko dëggam moo tax recours ban bëggoon a dugal sax jëm ci juge beeg na nga ko bëggee récuser jóge nañ ci parce que xam na ni Madiambal da doon tappale Madiambal Diagne yamul ci loolu maanaam li may faral di wax moom ci deru usmaan sonk lay dund parce que bu parce que bu bëggee ñu dégg ko wala mu bëgg ñu liir ko ci Ousmane sonk lay bind parce que jambal intéressé wul kenn mais Ousmane Sonko mooy koo xam ne loo bind ci moom ñu liir ko loo wax ci moom ñu déglu ko même bu dee lu bon sax nit ñi dinañ ko déglu mais même sax bu dee lu bon ngay bind ci moom nit ñi dinañ ko liir parce que nag nit kee toll noonu. mais bu doon jëmmi Madiambal rek kenn du ko seetaan kenn du ko déglu Madiambal ñàkk xam-xamam mënta weesu ak li jëm ci xaw ma doo xam soxor la doo xam rancune xol bu bon doo xam lan la réelement doo xam daal lan la lan moo indi loolu ci Madiambal Diagne mooy nit ku tëdd ci hôpital principal Ousmane Sonko Madiambal génn naan prisonnier boo xam ne mu nga tëdd hôpital dara dalu ko te mi ngi coûter état Sénégal bis bu ne cent cinquante mille francs état Sénégal état bi mooy yow ma jambal mooy man mooy ñi ci mbedd mi mooy waa Pastef mooy waa Benno état bi joxewul xaalisam de impôt yi ñuy dagg di ñu bëgg a rey ay courant bu coupé di ñu bëgg rey ak ndox mu seer di ñu bëgg a rey ak dund gu seer di ñu bëgg a rey ak xale yi mbëkk gaal yi di dem ci dee ci géej gi li nguur gi jël ci ñun la jël delloowaat ko Ousmane Sonko te patriotes yi ànd ak usmaan Sonko ñoom ku leen bàyyi woon usmaan Sonko tey jii ñoom ñu fajal ko seen bopp li nguur gi mën ci usmaan Sonko li gi mën ci Ousmane Sonko xale yi mën nañ ci lool fukk ndaxte ci benn fan da daan woote xale yi jox ko lu toll ci trois cent millions bu nee nii rek lépp di ñëw yow li nguur gi def ci Ousmane Sonko war laa naqadi. ba ngay xëy di calculer combien de jours la tëdd ak ñaata jours lay coûter Sénégal mais Madiambal li nga waroon wax waxoo ko suñ mille milliards Covid yi ñaata la ñu sun suñ coono bii ñuy dund est que du milliards ñi ñuy sàcc moo tax doo ci bind. coono ji ñuy dund est-ce que ñiy toog muy dox mel na yow est-ce que ñoo ñu ko teg toog muy dox lépp nice lépp ça va est-ce que lii ñuy dund li ñu ko teg. du courant bi ñu yokk ñetti yoon ci ndoddub sénégalais yi est-ce que loolu waroo ci woon bind yow Madiambal Diagne est-ce que waroo woon dund ci ndox mu seer mi est-ce que woon bind ci dund gi est-ce que ci xale yi gàdda gàddaay di génn réew mi di dem di dee ci ndox mi un journaliste professionnel nga bàyyi fi loolu lépp boo xëyee kàbbar ci Ousmane Sonko bu ngonee nga sëlmal ci moom xaaroon na la feneen parce que ñun bañ ñu ko wax ci Ousmane Sonko. mais nit ki boo demee bay wax sax nga xaw muus tuuti hôpital ak kaso ñoo yem nit du fa tëdd ci sagoom Ousmane Sonko bu sañoon du tëdd hôpital ba mu nguur gi di ko yoral dara waaye nag li wala fi wax dëgg la ku la yéene nga dee loo yooyu mu xeeb ku la yéene nga dee loo feebar mu xeeb loolu jëm ci ñàkk xel li naan yenn saay ku la bañ ba bañ la loo ko mënti defal du ko gis ndax mu mbañeel ga lay xool nekkatul affaire journal mais affaire mbañeel la mbañeel goo xam ne doo xam fan la ko ma jàmbal ak ay nitam nat dem ba moom taytu ko mais Ousmane ko à l'hôpital mais bu ko nguur gi jëlu en charge ku koy jël kan moo ko fa yóbbu kan moo ko fa teg kan moo ko fa dugal yóbbu fa boppam dugalu fa boppam yàgg naa feebar faj boppam bi ne da nga ko fi pompe fii fan la fajoo mais fii la dem faju ji boobu est-ce que da ci yaakaar état est-ce fa dafa yaakaar ñu taxawu ko ci dara mais ña ko yóbbu pavillon spécial teeku ci kaso bi ñoo ko war a faj te loolu ñu koy fajee du seen alal génnewuñ ko seen poste ci poste sénégalais yi lañ ko jëlee tey jii boo naan Ousmane Sonko lim ñuy coûté mais état Sénégal ñaata la ñuy coûté ñaata ordre de mission ñaata nit ñoo nekk ci gouvernement bi ñaata train de vie état bi est-ce que doo ci wax lim ñuy coûter lan la xaalis bi ñuy jël ci ñun fan la jëm on soufre ay chargé de mission ay ministre conseil ay journaliste mercenaire ñoo ñëpp état bi di leen jël en charge pour pourtant ma jëmbal waxu ci dara léegi topp ci train de bu léegi bu de maanaam waxal nga Ousmane dem ba ci mbiri Adji Sarr nga bind ci livre bu rëy heure bu ñu xëyee jamono di ko weddi xoolal audio Adji Sarr beeg sa kii Gabriel Kane fen yi Adji Sarr doon fay dem ba Gabriel ma ko doon jàppale ak santage yi mu doon def yooyu yëpp tey jii dem ba firi dëgg nga waroon courber l'échine nga waroon def profil bas nga waroon dem làqatu ji mais mais defoo ko sëgg ci deru jàmbur. maanaam di wax ci nit di wax ci nit ba mu tëdd ci l'hôpital loolu tax des fois bu Juan Branco di wax nit ñi jàpp ni Juan mais da koy gëm parce que yenn mbañeel yi buñ demee ba xel di dem ci yenn yi doo ko mën a weddi maanaam looy bëgg bëgg ko nank mais looy bañ bañ ko nànk ba ndax ëllëg ak tax nguur gi ñetti ñeenti weer moo ci des te seen mbër mi ngeen yaakaar fu ne ngeen samp ko fa mbër mi Macky mi ko sàkk Macky mi ko tànn xam na du waaja bu dee ba ne moo fi tane Amadou Ba nga xool terrain politique bi nga xool ni politique bi di doxee ak parrainage bi nu mu dëgëree doo dox ci dëkk bi ba gis ku yor fiisu amalu Ba wala fiisu keneen ak keneen jam ba ñuy jiin Sonko ma tëdd ci hôpital naan moo bloqué lii di parrainage yi maanaam Sonko léegi dama ne est-ce que du moom mooy entraîneur bi ñu jox carton rouge mu toog ca kow tribune ba di gagné yéen ñu toog ci maa bi mënoo leen gagné moom rouge leen ko jox na ko toogal ca toogal ca kaw tirbine ba. yéen ñi nekk ci banc bi loolu tax en politique da am lu tubaab bi di wax rien na se donne sur un plateau d'argent en politique tout tout s'arrache politique da ngay reyante pour am li nga bëgg tey ji Amadou Ba mi Pape Djibril Fall di Abdourahmane Diouf di keneen ak keneen ci parrainage lu leen sonal ba ci ay Khalifa Sall yi lu leen sonal mooy il ne mouille pas le maillot ñafe di nga le président Macky Sall bañ ko nga bëgg ko loolu sama yoon nekku ci mais dafa ñafe dugg ci terrain bi wër réew mi ba jël réew mi mais ay Amadou Ba yi pourquoi ñu sonn ci parrainage bi loolu waa ñoom ma jambal war a wax Macky da ko tànn ba pare mais xam nañu du waaja mooy Amadou Ba kañ la mës wër Sénégal kañ la mës rey boppam ci dara ñu bari ñu ngi naan Macky Sall mais Macky Sall li mu mënoon ci Amadou Ba def na ko ministre affaires étrangères ministre des finances coordonnateur benn Bokk Yaakaar mais coordonnateur benn Bokk Yaakaar mais poste politique la bu la ko defee mooy boobu nekkul ministre mu nekkul dara am nga jot mais wëral réew mi bunt bu ne nga dugg fa lu ne nga fëgg ko mais bu defoon loolu tey jii loolu jariñ ko tey jii Ousmane Sonko mii ñuy wax naan moo téye parrainage yi loolu liggéeyu ko tey de. Ousmane Sonko plus fort reste la dooree en 2017 maanaam dañ kaa xeetali pour mu doon député comme ni ko maître El Hadj Diouf di waxee kooku en 2019 mu ñëw jël troisième mooy wane ni de 2017 à 2019 kooku tëddul di nalaw local ak législative mu wër réew mi di def nemmeeku tur fu ne mu dugg fa moo tax nemmeeku tur bi mu doon def ñu bari état bi di ko bloqué fu ne ñu bloqué ku fa bañ mu génn wala wala bañ mu yëngatu parce que politique lan la. politique massification la ak animation ak animation mais Amadou Ba parcelle gi mu jiite sax mënu fa am dara te ñoom mooy mbëri ñoom jambal te Amadou Ba bu ma ko doon conseillé dama naa ko ñu mel na Madiambal bu ñu ànd ak yow am na ñoo xam ne booy ànd ak ñoom du wuti doo am te ba fa bari Amadou Ba ñi koy jàppale ñoo xam ne sénégalais dañ leen a jéppi ndax seen comportement seen doxalin ak seen nekkin ni ñu nekkee ci réew mi ñooñ nag ñoo ëmb Amadou Ba teg na nañ ko may dara mais ni koy liggéeyee du noonu teg ci Amadou Ba tey liggéeyalul boppam dafa jàpp ni lépp dañ ko ko war a defal ci politique daf ci di nga bari bal taxut a mën a jam fi tey jam loolu olof yi wax maanaam bari bal taxut a mën a jam fit mooy jam daf ci am loo xam ne bul xaar ku la ko wax yow yaay jug dem def ko bul xaar looy def def ko lu la ci fekk mooy loolu àddina boo bëggee di réussir noonu ngay def àdduna tout est risque Sonko ba ba mu jotee. dafa xuus jàll te kenn jàllaluwu ko ñu wante dëgg Macky Sall mi ba ba mu jotee dafa xuus jàll keneen ak keneen mais tey jii ñi fi nekk yëpp di kaas ci parrainage bi ay taayal lan bu weesoo Amadou Ba ñoom Pape Djibril Fall jamono ji ñu waree wàcc nekk ay jeunes ay ñoom euh, Abdourahmane Diouf bu Sonko musaana génn ñu naan non dafa bari fitna ñun ay opposition républicain ñun réew mi du nu nangu ku ko taal. xale yi ci kaso bi ku ci def dara nan la bàyyi mais képp koo xam ne yaa doon taal wala kii yaa ngi discours yéen doon def démb ñëpp jàpp nañ ko seen discours yu démb moo leen rattrapé tey Pape bi toogu fii di traité de rebelle les militants de Sonko di leen traité d'ethnicistes ay joola loo xam ne ci réew mi ñu bari dañ koy xalaat mais kenn ñemewu ko wax mais Pape bi a osé le dire mooy ay mbiru joolaa ak kii dem ci manifestation yi lu ne mu dugg ci jamono ji mu waree liggéey dina dugganteeg ndaw ñi dem na fi bay menacé di porte plainte ay jeunes boobu dama toog ci tàkku show ma ne ko bu ci dugg parce que ndaw yi ëllëg danga leen di soxla lan la liggéey ci digganteem ak ndaw yi ba tey tey tax tey ji ñu war ko pare ne kon ji ku ci mere meral sa bopp Abdourahmane bi nekk ñëwal dugg yeew mu dem dugg ar Sénégal ar Sénégal yan discours lañ yoroon. yoruñu woon benn discours contre Macky Sall mais ñoom dafa mel ne c'était une opposition dans l'opposition maanaam opposition boo xam ne ci biir opposition bi lan ne doon jàkkaarloog Sonko Aar Sénégal def nañ seen campagne législative ba mu jeex wax bu wax wala ñu gaarawaale ñoom Thierno Alassane Sall ñi ngi ko jëmee ci Sonko ak waa Yewwi Askan Wi loolu nag tey jii moo leen rattraper politiquement parce que animation bu ñu waroon a def à la base. li jëm ci massification bu nu waroon def moom lañ deful teg ci ñàkk xam seen bopp aussi parce que aussi ñoruñu politiquement ji nga àddina nangu day teew woyofal ay duma teel a nangu ji nga ki la mën nangu ko ni maa la mën te e-, élection expérience la élection expérience la doo tëb rek na ci lacc tey jii Sonko tey jii bu demee ba am li mu am lan moo ko may une expérience mooy dafa dem élection demaat ko Sonko nekkul candidat ci législative bi locales yi Ziguinchor la pourquoi mu doon wàcc fu ne mu dugg fa ci réew mi parce que mi ngi doon préparer atum 2024 waxuma la moom jëmmam waaye bu sampee mbërëm sax mbërëm daan maanaam seen Sonko day bokk ci di wala mu bokk ci nee loolu nag liggéey la bu mu defaral boppam mais tey ji Pape Djibi li muy dëggal mooy ñi doon wax naan ñoom euh, Amsatou Sow Sidibé seen parrainage dañ ko ko jox mu jël ko ak mais ñool moom aveu d'échec la def li mu wax day dëggal ni moom est-ce que sax parrainage yi ñu doon wax naan am na ko am na ko pare que beaucoup de gens se posaient des questions lu tax Bougane amul lu tax Bougane amul Pape bi mën fa am ay lii mais Pape bi ëppul mérite Bougane te Bougane mën nga ko waxal lu ne ci politique mais Bougane ku ñeme àll bi la de ku ñeme mbedd mi la mais Pape bi lan la defoon tey ba mën a am parrainage loolu tax tey jii problème yi mu am. ba naan parrainage bi optionnel bi ñi ko mën a am ca assemblée waru ñoon wàcc ci terrain bi mais ba loi moo leen ko tere bi ñu koy voté à l' assemblée nationale da nga waroon taxaw def objection wala nga def amendement pour wax ni ah lii de baax na waaye bu ñu sañoon lii ak lii mais fa nga ko waroon waxee waxee woo ko fa Serigne Mbacke soxla noonu nee na bañ sa bañukaay ba ba nga ko waree wax waxoo ko pourquoi aujourd'hui léegi ñu bëgg rek jël ni Sonko mais Sonko li am moo ko liggéeyal boppam ah. il s'est battu il s'est sacrifié fu askan wi mës taxaw jooy mu jooy la leen fu askan wi mës sonn mu sonn la leen te loolu li koy dëggal mooy grève de la faim bi Sonko di def ci lay tëjee ak les prisonniers politiques les prisonniers politiques doon ay jigéen doon ay jigéen doon ay góor ñoo xam da leen a jàpp am lu leen jiiñ yóbbu leen instruction même li leen di jiiñ bu dee danoo jàpp ni dëgg la mais ku def 6 mois ci prison instruction da la war a àtte wala ñu bàyyi la tàngoor wi ak feebar yi rawatina ay jigéen parce que la femme elle est vulnérable ñu leen di xor ñoñal ci kaso bi mais Ousmane Sonko nit ñi danoo dee pour ñoom danoo jooy pour moom kon moom nit ñi nañ ko jaral mu xiif même bu dee dafa war a participer ci jàppale leen parce que ñee bu dee xiifal rek. les prisonniers peut-être du leen bàyyi xel mais bu ci Ousmane Sonko duggee rek adduna bi yëpp jot ci kon stratégie bi mu teg ne day dooraat grève de la faim bu baax la man loolu laa gis parce que moom bu commencé xiifal dina tax ñi xiifal nii ñu mën leen a bàyyi xel mais aussi ñu mën leen a déglu mais aussi ñu mën leen a taxawu parce que nguur gi nag coolee fi ne rek ragaluñu kenn bàyyiwul xel kenn ba ci politique bi opposition bi ku mën ci doon bàyyiwul xel kenn. xalifa Sall bii ñuy wax ay mbiri parrainage bu du woon parrainage optionnel day am problème comme sànq li may wax rek dafa génn kaso un kenn déggu ko coowal Ousmane Sonko Adji Sarr ko génne waat ba tey jii kon tey jii taxawaay bi mu am jëm ci les détenus politiques ak jigéen ñi ak xiifal bi lu normal la mais aussi kaso du kër Ousmane mënul kon ne rek di nekk ci kaso bi nan ko létt wala ñu firi ko wala ñu bàyyi ko mais nguur gi ni muy taxawee ak ni muy doxee. man je me pose des questions est-ce que bëgg noonu ñu dem élection parce que man dama gis ni parewuñu te mbër mi ñu samp yaa yaakaaruñ ko parewuñu waxuma la Ousmane Sonko bokk wala mu bokk waaye Ousmane Sonko bu sampee mbëram sax mais mbër moomu mën na am dara kon xiifal bi muy xiifal nguur gi bu ñu déglu ay Madiambal Diagne bu ñu déglu ma Massamba bu ñu déglu ma Mademba nan xam ne jàmmi Ousmane Sonko mooy jàmmi réew mi nanu xam ne jàmmi wér-gu-yaramu Ousmane Sonko mooy wérub réew mi koo xam ne tey jii président de la république waxuma la réew mi waaye fu mu dem ri ci bitim réew sax micro ban koy njëkk a sàllal ci Sonko lañ koy laaj li wolof yi di wax nag ah noonu ruus na la noonu bëggoon daluma Ousmane Sonko bu ko neexee mu wax ko. ndax bi ñu koy dàq sa fonction publique danoo foogoon ni foofu lay yem mu doon député doon li mu doon ba tey ji mu egg fi mu egg ñu xëy tas parteem bi ñu tasee partem tëj ko ci kaso bi tëj ay militant maanaam comité directeur bu Pastef ñëpp a ngi ci kaso bi tey ji la fi Pastef gën a ne tey ji la fi Ousmane ko gën a ne képp sax ku defar sab kafe boo ko bëggee suukar mu neex sax Sonko nga koy suukaree kon mii ma ñoom ma jàmbal di kum mën ci doon nanu xam ne der bi ngay dundee boo koy yàq yàq ko nank te booy bëgg del bëgg ci dëgg booy bañ del bëgg ci dëgg ndaxte nit ku ne am na lu muy desal ndaxte bu ëllëgee ñu mën laa setal adduna dafa gudd tànk te adduna day wëlbatiku kon mi administration bi ku mën ci doon nan xam ne adduna day wëlbatiku te li Pape Alé Niang wax dama koy dëggal ñi fi def yépp dañuy bind seen tur te histoire daa am lu la ciy dugal mais daa am lu la ciy génnee buñ sañoon na kii dugg ci histoire nga dugg ci duggin bu rafet bokk yi di jégalu ñëpp di balu ak ñëpp di gërëm El Hadj Modou Diouf ak topp di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon incha allah.